jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar mbokk yi ñu am mbégte jóge arène nationale ci journée wu Fallou njaay borom Ndiaye production yaakaar naa ne mu nekkoon journée boo xam ne amateur yëpp ñoo ko doon xaar mu nekk quatre grands combats premier grand combat bi nag yaakaar naa ne ki ko bëree dox na ci diggante ki mooy booy Diop numéro 2 ak ki nga xam mooy Farou Diar gis ngeen aada booy Bawol ak Arobas gis ngeen aussi tamit combat bi nga xam ne moo dox ci diggante Pape Dianka ak Karbala combat yëpp jàll ci jàmm grand combat bi nag ki ko bëri mooy caatu yoof digganteem ak bulldozer ñuy de bulldozer bu baax a baax a baax di ko masaw bu baax a baax di ko félicité di félicité aussi tamit ki nga xam mooy caatu yoof ñu topp si ko fii ci këram ginnaaw bi ñu la nuyoo bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi ñu dugg ci waxtaan bi Mourante maa ngi lay sant bu baax di la siyaar di leen nuyu yéen caméraman yi fi ñëw nii yëpp maa ngi di leen masawu coono xam di sant waa Yoff bu baax a baax a baax di sant boo xam ne suma mbokk mu ngi fa rek maa ngi lay sant bu baax a baax a baax xam nga waa Mboor ak Kees xam nga Ngor Wakaam xam nga ñu bàyyi ñu kenn dépp dëkku lébu yëpp ñu bu baax baax a baax a baax di julli si yoon sant suñu ñaari waajur bu baax mm-hmm. macha allah am na solo mbokk yi sekk ko samay confrères ku ci mel ni Serigne pël bu rafet aussi tamit suñu duwaaye suñu jigéen képp ku ci am question rek yaakaar naa ne mën na koo bàyyi mu ñëw pour ñu jublu ci waxtaan bi wàccaayu combat bi nan la demee woon. waaw sérieux rek ñun moom suñuy waaj combat dañuy sérieux moom bu dëgg yàlla li mu naan def koy bàyyi wàcc na combat pour am doole quoi. Mhm. yàlla mu ngi siy dimbali xam ñu ngi siy waaj ñu ngi am doole ñu ngi siy génn quoi di sant yàlla bu baax xam nga di génn a nuyu suñu écrits yi xam nga dirigeants yi ñu ngi nuyu di nuyu nuyu président yi xam di ñu yor lépp ñu ngi leen nuyu di nuyu koo xamal suñu tedd fi moo ja ñu ngi koy nuyu bu baax baax baax di ñaanal gin yàlla may ko ndam ak moo ji yëpp ak ong yàlla na yàlla may ndam ñoom ñëpp ban heure nga jóge sa kër guddee ngaa dugg si de exact ah te tey naa jóge sa quatre heures départ na mais circulation yi moo bëri quoi te fii gaan pour nga génne du yomb parce que booy ñoo fi bëri ko mooy loolu ayca gars yi ku am question mu ñëw bala ñoo xaabaabal am benn caractère bi nga xamante ni da koy dégagé. si open press de contrat mobiliser lan la woon daa am nga jëloon ni dala doon déranger wala lan la woon. non Bulldozer moom mënuma déranger dara pour moom nag mu ngi wax benn wax muy seen bàyyi temps xataan te loolu déranger moom xamal ni man mi ngaa ko la wax ma bàyyi la si biir rek jàpp nga jàpp ne loolu dafa ma métti loolu déranger mo si moom li laa bëggoon si moom rek xam nga humilier ko te yàlla suturaal la ma si ba loolu am na ko ayca sëriñ wala pël ba tey mhm. ayca combat bi yaakaar naa ne da nga jël combat bi amateur yu bari ne waruloo jël combat bi parce que tamit Bulldozer def na ay performance mais aussi tamit sa dayoo bi nga am si làmb combat yu mel ni est-ce que jël ko du risque si yow tey buñ la daanoon non xam nga ay ay ay jeunes la n'est-ce pas buñ bëriwul ñu ngi per suñu temps te bii buñ bëriwul suñu adversaire ñu ngi raw sa sañoon dañuy yeew rek xam nga bëri ji roi des arènes loolu loolu mooy suñu te gëm loolu mais tey bu ñu amul combat dañuy jël ñi nga xamante ne dañuy bëri ñoom pour neexal pour mën a relancer waa suñu carrière mhm. moo gën toogaay bi n'est-ce pas moom xam nga waa Yoff pare nañ mhm. su ma amul xam naa ma a bëri wat parce que xam naa du ma si bàyyi quoi mhm. mooy loolu bi mu summeekoo nga summeeku lan nga gis si moom non moom moom non moom moom liggéey na macha allah mais liggéey ñoo bokkul waxoon naa ko signature bi waxoon naa ko liggéey ñoo bokkul Mm-hmm. ok nga décortiquer ñu combat ba chute bi am. waaw combat bi waaw dan abi dafa si moom mu dëggal boppam li mu waxoon tamit. waaw teggiwu si dara. parce que mu dëggal boppam taxaw xam nga moom moo ma njëkk a dóor ku sax ma fente ko noonu xam nga après si laa jàpp dóor kay ku mu mu kaw quoi. Mm-hmm. après si laa ko doggali waaw. Thiat mm-hmm. lii lii bu jee sax est-ce que di nga amati adversaire ci làmb. ah làmb dóoroon wax de tey see ñoom ku ma si yokk damay dóor comme man ku ma yokk dama lay dóor de. boo ma jokkoo rey mais bu ma la jokkoo dama lay rey waaw. ngay wax adversaire bi ginnaaw ay jàmm yaakaar naa ne combat bi muy taxaw palaasu Fallou Ndiaye cool yi bari woon na lool période tabaski la woon ginnaaw ay nag jàmm làmb ji jeex na. non koy masawu rek xam parce que ñaari ñaari tiis la boole muy nga ñàkk xam ba pare nga ñëw yàlla xañ la xañ la xañ la victoire xam dama ko si masawu ba di wax làmb noonu la xam bonul nekkul loo xam ne te teru ndaanaan ndaanaan la. mais dafa fekk ki muy dajal moo ko man moo ko gën doon daanaan mhm. te moom champion la ñu ngi koy ñaanal moo xam ne carrière am continué waat bu fekkee bëriwul loo benn mbëru yoof xam nga yàlla yàlla defal ndam mais bu dee mbëru yoof nag xam nga yàlla ñàkkaat comme tey quoi. Mhm. ban erreur nga def si combat bi. non man gisuma erreur bu ma si def après nag gars yi dinañ gis erreur bu ma si def quoi. moom ban erreur la def ba jël defet moom waaw ah. mooy dëggal boppam. dëggal boppam. si waaw. na ci li ko xañ ko. xam nga booy bëri nit xamoo ko. te xam man xam naa ne xel maa ko man bu dee bëri maa ko daax bu dee doole maa ko. mais moom daan naan la de bil. buñ buñ bëree nga xam ne maa ko daax boo bëree ko xam ne moo lëpp loolu yëpp. calcul mm. moom. Mm. macha allah Serigne nag yaakaar naa ne ñu dugg ci adversaire yi tënk jataay bi yaakaar naa victoire yi mi ngi bëgg a bëri ginnaaw Dégol junior nga daan ko daan Jal Mandio daan keneen mooy Pape Sibel daan Jibigéey mi doon bëri tey daan Zambala daan ki nga xam mooy Sunjata Kayta daan Pape Thiam. daan ki nga mooy Gakou 2 daan Bébé Diouldé daan ki nga mooy Youssou Ndour ba tey teg nga ci Bulle de Gers ak yeneen victoire macha allah yàlla na la jik franc moo la daan sa premier grand combat caat léegi sa cible fan la. man de tey woo ma lu ma lu lu ma gënal sama adduna bi mooy ñu may ma revanche. revanche kan franc sama revanche laa soxla si adduna yàlla xam na loolu. xamul dama soxla ko. Eh. damay daje moom mu may njàpp te xamul ne allé boo gis am na retour. barke moom rek laa bëgg dajee jamono ji ñu toll nii. Franc rek yàlla xam na loolu. mais est-ce que du combat boobu dëgër bopp moo la ci dugaloon ak dëggal sa bopp est-ce que amul beneen yoon bu dul Franc. combat boobu ñàkk naago naago moo tax ma ñàkk combat bi. naago. yàlla xam na loolu naago rek moo ma ñàkk combat bi. dëggal sa bopp ci bëri. mais boo si daanee combat bi su ma loolu mais naago moo tax ma ñàkk ko waaw mais sant yàlla xam nga yàlla moom lépp lu mu nar a def moom xam commencement bi day métti mujj gi day neex quoi. Hmm. Aïcha Serigne ñëwal. par rapport ak adversaire yi ngay wax. Eh. parce hmm. hmm. mooy problème am côté staff bi la. wala ay moroomam dañ koy bàyyi xel lan la. non ñàkkumay staff de parce que Fallou Ndiaye mooy xam nga moo gérer yooyu yëpp. ñàkkumay staff. su may staff xam na lamb mais te moo tuddee benn affaire man tey su ma yeewoo liggéey jiw fu ma jëlee lu ma lekk. jaaxal de. boo nu may def ba avancé si suma métier. Mhm. loolu la suma métier bu ma si avancé soit ma am si xam-xam wala ma am si moyen wala temps à temps mhm. su ma bëriwul nag damay perte loolu yëpp. Mhm. loolu moo tax quoi. mais waa yëpp moo ciblé ay mbër instant yi nañu ay mbër ñoo wax ne instant ay mbër Jackson. no non Jackson Jackson Jackson moom kenn wax ko foofu moom. ak ki nga xamante ni mooy mooy noppi leen yéen rek ak ki nga xamante ni wax ak Moussa Ndoye lan wax foofu non wax Jackson moom bokku ci. lu tax Jackson bokku dégguma booy wax loolu quoi. non seen combat nag dafa yàgg dañ koy yàgg a lan mooy problème bi yow ak Jackson. ah mën naa nekk de. mën naa nekk de mais man ma sañoon tey Moussa Ndoye Moussa Ndoye moo Moussa Ndoye jé jéen kere laa gën a soxla. non Mama mu ngi si combat mu ngi si contrat mu ngi si amateur yëpp déclaré nañ ko ba nii nii may waxee yow photo montage nañ ko mi ngi daw maa ngi foto ngi yi kay. lambi kese la. maa ngi photo yi. <laughs> wax ci da nga sedd mu sedd nga kuul mu kuul bu arbitre sifflé ngeen mel ni gaynde waxal si lii. lamba mu ngi suñu kanam bu ñu waree bëre ren dañuy bëre ren. dala raw wala yaa ko raw. no man man pour ma maa raw quoi. booy noppin. booy booy. Gaston mooy boisson yi des si kàllaasi. góor a soog. moom mu daan jam céeri. ka moo daan. kan ka moo ko daan Fils de kon baax na ko. mais fu mu jógee. non non ay jam céeri la daan. ay Cobra la daan ay Baye Mandione. dëgg yàlla ñooñu ay Jokkel. ñooñu bàyyi ñu. ok Ty Tyson 2 la wax si moom. non Tyson 2 mooy vraiment Tyson 2. ah victoire bu bees a neex. xam nga du kese na victoire bu neex xam nga laa bëgg. Ah. combat boo xam day am jaww. mais Ndoye supporter yi baa koy waaj. loolu laay wër mais wëruma combat boo xamante ne ñii dañ koy ñi côté bi ñooy waaj côté bi duñ waaj. Eh, grand bi si ginnaaw xam na ne borom pokaar yi moom yombut. xam nga tey ji tey jii xam nga Bulldozer li mu wax pour ma bu ñëwee day mobiliser stade bi yëpp. non nag andi comme ni nga andee andi na de. bu ma bu ma xaajee ñetti booy doon noppi. bu ma xaajee bu ma xaajee ñetti par maa koy appelé par sëñ Bamba. ok ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw damay sant yàlla bu baax di julliwaat si yont bi xam nga di sant ñi fi taxaw ñëpp maa ngi leen sant bu baax di nuyu waa Yoff yëpp xam nga di nuyu mbëri nekk Ngor maa ngi leen nuyu bu baax xam nga di nuy suma goro Yacine Collège xam nga ak soxna si maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñoo ne diaspora bi muy Boubacar Assane Samb xam ama ah, faala gis naa affaire yi daaw gis naa affaire yëpp xam nga di nuyu mu gën a yokk si affaire yi xam nga parce que ñun doomu lan te bi tamit gëm nañu te yàlla bu yàlla tas am na si ñun yaakaar xam maa ngi sant ñëpp di julli si yoon bi di santaat sumay ñaari waajur di sant fi nga xamante ne mooy sunu dëkk xam muy yoof ak kees ak ndar ak mboora di nuyu sama tànt yi ne mboora yëpp maa ngi baax yow yaay mën di nuyu xam nga di nuyu di nuyu tund lébu yëpp waa Dakar maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax. ayca sëriñ tëjël kon. acca mm. mbokk yi mi noonu yaakaar naa ne lii la woon ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax di encourager Bulldozer di ko féliciter di ko wax ne ko làmb noonu la moom tamit di ko féliciter bu baax a baax Onda kon Serigne nee na mi ngi lay nuyu mbokk di leen jox di daje ba beneen yoon jërëjëf.